wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi rawatina ñi nga xam ne ñi ngi bàyyi xel dëkk bii di Touba waaye kàddu gi bàyyi ko fii ci jumaa ju mag ji ci e, commission bi nga xam ne ñoo baaxoo di séentu weer wi ni ñu ko baaxoo def waxtu weeru wolof amee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci njiitu sëriñ Mouhamadul Mamoun Bousso feggo ak sëriñ Abdou Diop imam ak waa daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu jumaa ji bi ñoo àndee ak ñoom nag ci wàllu séntu weer bi xam ngeen ne tey jii di e, ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci àllarba ji ci weeru tamxarit ñuy séntu weeru safar e, ni ñu ko baaxoo def bu ñu sëlmalee timis sëriñ Abdou Diop imam dana wax ci rajo jumaa ji wax na sëriñ bi nee na nañu séntu weer bi te ku ci xam lu wér nga ñëw yëgle ko suñu noppee itam danañ jokkoo ak ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ku mel ne sëriñ Bassirou Mbacke mu suñu Abdul Khoudous nekk ca Darou Mouhty dox suñu diggante ak waa Tiwaawoon waaye ku mel ne sëriñ Modou Mbacke si mi nga xam ne moo jiite représentant xalif Zal de Mouride yi nekk ci région yi moom it danañ jokkoo ak moom waaye danañ jokkoo ak commission bu mag ba nekk Dakar nga xam ne ñoo nekk ca euh, foofa ci njiitul imaam Diène ak imaam Sakho ak imaam Ndiaye ñoom ñëpp. ginnaaw bu ñu jokkoo ak ñoom ba noppi nag danañ jokkoo ak Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa waaye xam ngeen ne nag sëriñ bi day wax ne suñu séentoo weer wi nañuy toog ba julli gee ba noppi teg ci lu mat fanweeri minute soo ko def déclaration loolu moo tax déclaration bi di xaw a yeex moo ginnaaw boo xamee ne nag séentu nañ weer wi ba julli gee ba noppi ba toog fanweeri minute ci lañ jokkoowaat ak sëriñ bi mu joxe ndigal li nga xam ne moom lañ fas yéenee jëfandikoo. ñu maase déglu sëriñ Abdou Diop imaam mi nga xam ne moo koy jottali. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaw ni ko euh, sëriñ Fallou Galas si la waxee rek. ni ko baaxoo def def nañ ko muy weer wu sëriñ bi danañu yabal ca. ci rajo jumaa ji. ngir ñu yéene ci wax ñu séentu weer te lu ci waay xam nga ñëwili ko buñ defee noonu ba noppi ne danay génn ci soowu bokk di séentu weer wi ak di taatan xibaar yi ci gox yi yàlla dogal na biñ ko defee ba gee jot ñu jog ko kër sëñ bi sëñ bi néggandiku loonu neenu léegi na ngeen nég bañ julli buñ jullee gee ba noppi na ngeen ci teg weeri minute ngir euh, mën a xibaar yi yu sori yi gën a mën a jege si bi biñ ko defee ba noppit far euh, farweeri midi bañ ko ci tegee du tee nu jokkoo kër sëñ ba ndax ndigal rek dañ ciy diglu biñ jokkoo foofa mu ne waaw léegi jot na kon mën ngeen koo yëgle kon ñu xam ne séentu nañ weer yi fu ne ci gox yi yëpp taadar xibaar yëpp waaye nag gisuñ ko fenn kon ñu xam ne suba ci alxames ji mooy mooy mottali weer wi weeru muharam bi bu ko defee ajjuma di benn fanu màggal gi di safar nga xam kon day mel ni màggal gi alterné lay doon ndax bu ne ajjuma gaaw a dibéer bu delsee mooy leen fukki fan nga tàmbaliwaat altine bu dikkee di juróom-ñetti fan yi di fukki fan yaa juróom-ñett kon ne ko ñëpp xam ne weer yi feeñut suba day dañuy mottali fanweeri fan yi ci alxames ji ajjuma mooy benn fanu safar na ko ñëpp xam waaw kon nag na nga noo ngi ñaan yàlla nag dara ji Sëriñ Tuubaa Euh, sëñ Mountakha yàgg fi lool te ànd ak wér ba li mu yéene ci yoon wi lépp mu àggale ko te nu nu yàgg ci gannaawam te ànd ak xéewal ak jàmm ak sutura teraanga te di sant bokk yëpp nag euh, ñi ñi teew fii rajo yi ñin ci limu ñi jëruñuy lim waaye bu ñu tàmbalee sëñ Fallou Galass Sylla rek ñi ci des ñëpp xam na leen waaw tey sant bu baax a baax a baax a baax waa Muxaddamatul Xidma ndax jàpp nañ ci bu baax a baax a baax ñoom ñu ngi ci def seen yëf bopp di téléphoné ci gox yeeg fu ne ñu di fa kii kon nag ñu ngi leen sant bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa mooy déclaration bi nga xam ne moo jóge fii ci jumaa ju mag ji kon ñu xam ne weer wi feeñul juma mooy doon benn fan la 4 mooy nekk màggal gi incha allahu rabbi la 4 septembre mooy doon bisu màggalu Tuuba dëppoo ak bisub altine ñu ngi ñaanalaat Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa sun borom gën ko fay yàggal gën a dolli ak wéram wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.